Salut les amis de eSport et de Babo Show. Merci encore de la confiance renouvelée. Merci de des likes, merci de des abonnés, merci également du baisser les commentaires. Un plaisir renouvelé chaque fois de partager une information. Bok Sénégal yi fépp fu la mënti également 14 régions du Sénégal ruq-ruqaat yi gox leen di jaajëfal ñu nekk également ci l'hôpital hôpital ci kër de tëdd feebar na suñu borom fogg seen bok ñu rek jàmm ñu nekk ci kasso yi ngeen xamné aussi erreur judiciaire gi ñu ñu def mo leen fa yóbbu suñu borom génne leen fa delluwaat leen seen i njaboot ñu dëddoo àdduna suñu borom xar leen àjjana fi do ci gaay yi yéex ñu on avance ensemble On la magie de Baba Show et de Sport TV l'actualité en continu gaay actualité ñu ngi fa di sa Idrissa Gana Gueye bi nga xam nag à part après Sadio Mané momit amna benen partenariat bo xamné ne signé na ak institution yi Sénégal alors aussi si média mal et Paris Saint-Germain Techniquement, Khaïs moom euh, l'hommage de Vinicius Junior à Neymar aussi déco les morts qui du Neymar du côté du FC Barcelone Là, tabou également diamono ji dal ñu ngi wax ne Ansu Fati dal bokk na ci ils sont indésirables du côté du FC Barcelone Barça d'Al compté wul ci ñom batam dal mom Ansu Fati gay nañ ba nañ ne ko bu ay dal dem fenen mom nga il y a juste deux ans hein, de cela gars yi ko ne moy le nouveau Lionel Messi ou bien celui qui est sur la route de voilà de de devenir le futur Messi malheureusement mongo go. José Lu nag Real ñoom annoncé nañu officiellement game du côté donc euh, de Real Madrid mom nak option 1 million Real ko non lever mais mom après mon décidé dem ndax daf bëggoon am temps de jeu ak xaalis bu bari aussi ki am donc pour euh, le pour na ko hein, pour le moom mom fi fini comme euh, donc l'équipe de Thiès Fabregas ñu ngi si bu baax baax dal pour ko daal di recruter et que mbir mi ngi avancé sax lu ëpp solo gaay yi nak moy donc ñi gagné trophée Copa America yi ngi ni hein, donc vous allez voir que ni Brésil euh, donc mom ak Argentine. Nous avons gagné li Copa América c'est exceptionnel donc les deux équipes pendant ce temps a James Rodriguez Wadi Bay, on se rappelle de la coupe du monde 2014 ah, euh, pour Nianini. donc li mu fa defoon ba mi donc nous avons nañ une na mais li Copa América c'est phénoménal pour montrer qu'il est encore au top de sa forme Mais il hygiène de vie James Rodriguez pendant ce temps le euh, Brésil bi nga xam un match bi passé gis il est ah, donc gars yi kontaan un ci résultat et tout Nous daal euh, d'or, si donc Paraguay 4 buts à 1 Vinicius Junior a def doublé Paqueta double penalty Axel Slavio également le joueur de Manchester City aussi daal ni euh, mais aussi Vinicius Junior qui a tenu à rendre hommage à Neymar xam ne Neymar moom idolo moo tax ko meewu idolo gis ngeen ko di euh, rendre hommage à la célébration de Neymar di daal di célébrer ki nga xam ne nag mooy Javier Tebas daal na ci profité moom tamit ne kii di Vinicius Junior même bu arrêté carrière am ci wàllum football dañoo bëgg mu nekk ambassadeur

ko yem imposé ni boy bi gis ci boppam daal di dem mais bu won lolou loolu Neymar du mësu joggé ci barcelone nak diko moko wax du samay wax mais également Mundo Deportivo momit mo moo di xëy fësal né eh, ki nga xam mooy donc Lamine ay Yamal wa Paris Saint-Germain dal par nañ gars yi gafa gi koppar gu bëri lu tolok ci 52 millions d'euros pour dal di koy jënd waye Barça dal néna jaayul tay jaayul suba jaayul ëllëg jaayul ginnaaw ginnaaw waati ëllëg moo ngoog ñoom daal lañ dal di wax ki nak di eh, Villa David Villa dootuñ ko dootuñ ko wax mom dal néna ki nga xam mooy donc Lionel il est unique il est spécial Villa l'ancien buteur également du FC Barcelone il a un Barça il a un Valence et tout Qui est di aussi ancien joueur FC Barcelone qui qui donc, xam euh, donc Juninho plutôt notre petit, tuddati Coutinho mom dal ci Vasco de Gama dal la dem daal di contrat am la léegi ñu daal di koy officialiser mom mi nga xam jaar na Liverpool ndaysan jaar Barça jaar Bayern xolen rek moo ki dag nag di Idrissa ganna Gueye gannaaw bi sa Mané gis ngeen ko mi ngi signer actuellement ay partenariat ak Air senegal ak yooyu mom nak dafa dem signer ak wa aidb aidb ah, la dem signer la AIBD aidb <laughs> pour tooñ gay <laughs> ah AIBD bien évidemment gay AIBD la donc fa la daal di signé partenariat bo xamne mom dafa bëgg investir ci nga xam donc moy aeroville lol dal la wax. waxtaan ci ki donc directeur bu AIBD ki nga xam donc Idrissa Gana Gueye donc un jour bo xam ci aussi mi ngi liggéey bu baax baax ci walum social bi tout ñu wax les amis c'était les informations qu'on voulait vous donner sur Baba Show on se retrouve bu leen ko faté ci eSport TV mais avant tout abonnez leen ci Baba Show agrandir la famille dem ci TikTok bi eSport TV 1 ak Instagram bi eSport Inter lepp ngir jot information en temps et en heure gaay